AFP la ñaxtu alors. non bi non bi du rouge grand parti. rouge ban la rouge ah, grand parti rouge bi la mbaxane man rouge écarlate. mbaxane bay gis nga ko. yes. <laughs> démb de amee xaalis bu bëri ba ma may. na nga def nag. est que. ay zéro yu bëri de. ay tribune bi ak libération est-ce que duñ du ma ko ah, duñ ma ko abal. déedéet déedéet kii la. waaw waaw waaw Vox Populi ak libération ma dem ah. yaas ma dem. demal tribune yéen kaay ñëw ak ñun ci. eh nuyu waa eh, de. waaw nuyu leen. ñi liy dégloo yooyu de. nuyu leen nuyu nañu waa tali bi ak lébu ay man lébu yi. sama mbokki lébu yi man lébu yeeg sama mbokki lébu yi lébu yi lébu yi lébu yi mm-hmm. ak libération ñu dem. ayca tribune ñëw ak ñun ci Ousmane mi nga xam ne démb mujj nañ ko bàyyi mu ñibbi waaye dafa amee de trois mois de suspension la am di sous contrôle judiciaire journal bi ne lan mooy sous contrôle judiciaire nee nañ maanaam ci suñu wàll bu yoon euh, mooy premier degré wu euh, moomeelu doomu aadama liberté am mhm. liberté lu njëkk lañ ko ci njëkk a xañ xañ yi bëri na ay façon de xañ yi dafa bëri ay façon mhm. ay détention provisoire man mandat de dépôt bi fii ak condamnation yeneen ak waaye bii moom mm. naam dinañ la bàyyi nga nekk ak sa kër waaye daal xam naa ne du liberté totale parce que journal bi nee na su la buur soxlaa nga dikk te tukki bi tamit tukki tukki bi yëpp am na ay limite yoo xam ne nag boo demee ba di dem yow da ngaa tàggoo est-ce que dana dem sax. ah. ma ne ko est-ce que dana dem. <laughs> loolu nag amulee ay conditions am na de. Mhm. mooy détention mooy mooy mooy mandat d'amener mooy njëkk ñaareel bi mooy détention provisoire dañ lay jàppandeegum troisième ba nag mooy mandat de dépôt gars yi mën nañoo kase lii à tout moment bu dee contenu wu. le juge ba bind. Mhm. boo ko bravé def lu la neex. maar taali mhm. waaye. su dee Ousmane ko dafa nekk sous contrôle judiciaire Macky itam il est sous contrôle du peuple. discours bi wane na ko démb dafa jënd glace de. Mm-hmm. démb. Mm. démb kay Macky luy xeetoo ak ak kaane poobar da koo teg ci suuf. noo ko gisee démb. démb. taxawee posture am. non ñenn ñi nee nañ il est serein homme dugg na fii génn fii. Mm-hmm. mais événement yi ñoo ko def. c'est normal aussi. non événement yi ñoo créé ñoo ñoo def Macky démb li mu def. Mm-hmm. Ousmane Sonko événement yi mënoon na ko def ñaar def ko ni makki démb wa illaa def ko ni comme ni mu ko def démb. Mm-hmm. déggoo ma de am na ñoo xam ne bu ñu génnee ci yenn épreuve dañuy jënd glace. Mm-hmm. yenn opposants yoo xam ne bu ñu génnee ci yenn épreuve yi dañ leen dox lu leer lu mel ni lu ko mooy. bu génnee nag dañ naan ak ñoo xam ne bu ñu génnee dañuy gën a taral événement dafa muy def ci nit déggoo ma de. dëgg la de. voilà dëgg la. Ah, kay waay dégg nga léegi nag am na beneen xale boo xam ne tam rey nañ ko démb ci parce Parcelles Assainies. Walfadjri ñëw ak ñun ci Sonko lancé na la révolution nee na elle a eu lieu et personne ne peut plus l'arrêter expression boobu la utiliser démb. nee na gars yi tekkeeku nañu pour ñii non mbindeef mënatu leen a xam nga gis nga nga jàpp tàppet di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba benn suura mu jéngu sa kaw bu la côté rek nga yàqu dootul bàyyi bu la bàyyee dee makkee ngi nii dégg Sud Quotidien ñëw ak ñu nañu moom nag dee mën a nooy la woote Mbaye Dieye Faye <laughs> Mbaye Dieye Faye Mbaye Dieye ah na nooy. na démb daal boo bëggee dégg démb démb dégg dégg ba bàyyi démb ndiir na nooy nooy démb discours am yëpp du début à la fin. na nooy nooy. yi dañuy woy ci àgg hmm, waaw ñu waxtaanee ko. na nooy démb nag loolu la wax. sàll Sall naw nañ ko waxtaanee nañ bàyyi xiiroo bàyyi ñaayoo. bàyyi jàppal bàyyi. te du moom nee na seen famille ay guerrier lañ bu ñu jàppee duñ bàyyi démb dee nee na nooy. mu ne ko na nooyee nooy. na nooy. no soleil bi waroon na maa jege fii sax dégg nga mbay yemu ca mais mbay gi ak dégg daaj bu ko yusu ne mbay mu ne ko yusu xamoo lu sax. te noonu lay doxee. ah mbay. waaw. non xamul kii xamul. xamul lu tax xale la. Eh. bu nekkee lan. Eh. bu nekkee mbay. démb de ne ko Ousmane bu ne ko Sonko. <laughs> ku ma tooñ léegi ma boole la ak Siré. réew mi moom ñu koy jubbanti. loolu am na de. dégg nga loolu. dégg ca parce que lu toll ak ñetti téeméer ci ay milliards génnee na ko. président Macky Sall nee na. dinañu indi ay jubbanti ci budget bi nañ ci def ay jubbanti ngir xale yi parce que nee na comprendre naa leen yéen seen yi seen mer gii comprendre naa seenu mer xam naa ni li ngeen di dund moo neexul. ndeysaan seen mal vivre la wax démb. Mm-hmm. dégg nga mal vivre maanaam kon moom xam na ne gars yi li ñuy dund. vraiment des naa neex de dégg waaye bàyyi na àttekat bi ak Ousmane Sonko parce que nee na laissons la justice faire son travail. Mm. Macky Sall yemu ca de dama ne waaye moom nag li ko yàlla ji may nañ leen bàyyi justice def liggéeyam. Mm. waaye moom nag li ko yàlla ji may na nooy. na nooy na nooy na nooy ba mel ni xaal. waaw loolu du ñu ko génneel booy booy kii. MD. MD <laughs> bu amee di dem nga ma yaale ko na nooyo nooy boobu. non du ko teg léegi nii. c'est que seen problème mooy benn affaire yaa sew da ngay ruux. dégg nga yow jënd katu glace gi rek jënd glace daa xew di. moom ku jaay glace jar lay. na sedd na na nooy réew mi quotidien ñëw ak ñun ci ma kay ngi nii nee na nooy. même ñamu fatoon sax 9h minuit. non lii kay xoolal. léegi man mi daan tëdd vingt heures sax moom sëriñ ndax teel a yow quatre heures du matin. léegi moom xoolal nii laay def suñ ko géej waaye ba quatre heures. <laughs> non non ba cinq heures du matin. dégg nga mhm. Ousmane Sonko day nee na dina yóbbu Macky sàll ca tribunal bi gën a kawe fa ñu yóbbu woon ñoom bëgg boobu. Mhm. parce que Ousmane Sonko nee na ñii dee ñëpp du kenn ku dul. Sall ngaari la taw. moo indi problème yi moo indi problème yi de am ñu ne dañ ko doon waatloo waat na démb waat waat na ko de mhm. nee na giñ na ne su doon lii ñu ko tuumaal dëgg la kon mu nangu ne bakkan yi yëpp kon moom la déggoo ma de box mhm. foofu li ñëw ak ñun ci Sonko ngi nii c'est que juróomi fan nag ginnaaw fitna yi nga xam ne gars yi dañoo gumboon tax lu tension bi diggante Ousmane Sonko ak kii Galas. gaa yaa ngi dem ak seen groupe. le temps de la lucidité. Sonko dalal na xel yi. Macky na nooy. illaahi Macky mos mos ma bëggee Macky nii man moom damay faf jënd carte APR. voilà. Euh. Euh. nit ñi kat jàmm lañ bëgg. <laughs> <laughs> yàlla xel dee li ma bëgg a wax ko waxoon maa ciy topp dégg l'observateur ñëwoon ñun ci fitna yaa ngi nii ak kàddu yu jib wax ci wàllu jàmm waaye président Macky Sall nee na ginnaaw ba ma dégloo jàngu bi clergé déglu kilifa diine julliti déglu waa société civile recevoir naa tam yenn ci opposition ñan la recevoir <laughs> non non ay ban opposition moo fa demoon mais xool waxuma ki waxuma bi yëpp daaneel gi daal mooy nanooy nanooy ci galaas galaas non tay damay wuti tay damay wuti crème di ko mat si <laughs> nooy la ndox mu nooy la quoi libération yéen a kaay ñëw na nooy bàyyi démb diir wala mbay jëy fay boo ci jox turam d'accord naa na mu ngi nii nee na xam naa ne li ngeen di dund ci biir quartier yi moo tax kon mag yi xam na ne ndaw yi xam nañ dégg comprendre na tamit mer gi jóge ci banlieue ba moo tax mu ne na nooy hmm. na nooy comprendre na tamit seen njàqare ak moo tax mu ne na <laughs> man damay xaar ba kenn waxat fii Macky dara la wax. comprendre na gars yi ne seen naqar la ñu génnee moo tax mu ne na nooy. am hmm. <laughs> jël yaas waay dégg loolu yaas. ginnaaw manifestation yi ak bakkan yu rot ci la Macky ne. nooy <laughs> dégg yaas lii laay daanelee libération bi laay daanelee moo tax ma ko doon laaj les éco yéen a kaay ñëw ak ti mesures yi Ousmane Sonko jël dégg ak li ko juge bi imposé na na koy def Macky Sall nag wax na ak ndaw yi comprendre na seen njàqare tiis moo tax mu ne na nooy non bàyyi naa waaye dafa si de jeexalu ma mais il faut que si aay la oui sama ne Ahmed président nee na xam na seen préoccupation ak seen inquiétude moo tax mu ne. nanooy. <laughs> Sonko ban bàkk la yëkkati. Sonko moom ban bàkk la yëkkati. dégg nga loolu mi ngi nii. li tax gars yi ci mbedd mi ak seen coono yi ñuy dund. moo tax mu ne nanooy. je comprends la colère des banlieues. mu ne nanooy. Mm. laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. nanooy nanooy. ah na une paix mu ne nanooy. le témoin yéen a kaay ñëw ak ci Sonko charge. Macky ne lan. ah mooy apaisé. wala Siré ah dafay Siré il faut ma parce que gars yi dañu foog dégg voilà le quotidien national. Mm-hmm. je vous ai compris. dégg naa leen waaye. na nooy déggoo ma de nee na dinañu dimbali njabootu ñi mm-hmm. benn ñaar danañu indi ay jubbanti ci xaalis bi ngir politique jeunesse bi. Mm-hmm. mu ne na nooy couvre-feu bi neuf heures la woon léegi minuit cinq heures. na nooy ki yonent bi waaye as looy rek. na nooy ñoom ñaar nag seeni kàddu démb. Hmm. defante la de. Hmm. kii jiitu kii ñëw. kii dafa taral. suusal ko ba mu suus tàng jër. ma ki ñëw nee na nooy. parce hmm. que yonent bi dis bu gàtt ànd ak nooy. mbay jéey. <laughs> Youssou évidence yéen kaay nañu Sonko sage Macky na noonu <laughs> wala si non déchargé ak apaisé mooy ah, ah, ah. la dégg la dina doy voilà mu ne Sonko sage Macky décharge mooy non da dëgg bi daal di tudd ngéwéle. léegi. léegi Sonko daa na nooy wuy ma eh eh huit heures jot. Eh, li neex na waay. Birame fi may daanelee mooy. jàkkaarloo